أمام الجوادي والجوج جالا أباك من والله لو كنت شاهدا أمام جوادي والجوج جالا أمام جوادي والجوج جالا أمام الدعوات والجوج جول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعlamu an allaha yaxlu bayna al wa xalbihi wa anoo ilay tuxsharun bu ngeen déggee loolu nag ndigal ñëw na jóge ci kan sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général de Tidiane jëm ci doomam fa tabaarakallaahu muy kan oustaz Malick Diop lan moo xew gàmmu annuel fan lay xewee promenade Thiès waa le 28 décembre fu nu koy defee fii ci promenade Thiès waa fa tabaarakallaahu di ko yëgal mbokki jullit yépp l'islam bi yépp ak classe politique bi yépp di ko yëgal nag son excellence le président de la république El Hadji Macky Sall ak soxnaam su baax si di ko yëgalit kan ah le ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye fa tabarakallahu di xarit di soppe ci oustaz Hadj Malick Diop ak fa tabarakallahu di ko yëgal nag le gouverneur de la région de Thiès ak kan ak at adjoint am di ko yëg le préfet di ko yëgit le maire de la ville ak le président conseil départemental El Hadj sa sekk mu baax mi lan fan fi ñu koy defee nag mooy ci promenade Thiès waa léegi nag ñu ngi jox suñu jigéen fa la nga xam ni mbo ci jigéen ñi bokk ci koñ bi muy soxna Aminta Camara mu wax leen li xew lan la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 di woo suñu mbootaay yi ñépp nañu teel a génn jàpp ci liggéey bi jàpp ci liggéey bi ba ñépp xam ne jàpp nañ ci ñoo ngi woo ñépp di woo waa Cité di woo waa Grand Thiès di woo waa Fayu waa Fayu nañu génn liñ ci bëgg nag teeru gan yi teral gan yi bu vingt jotee incha allahu rabbi na ñépp tase kër Hadj Malick Diop bi paa nag ñu ngi koy defee ca promenade des Thiessois le 28 décembre 2019 na ñépp teel a génn sañse yu jekk musóor yu jol joli na ñépp ñëw fekke ko fii ñu jël suñuy kaar dem ci jàmm ñëwaat ci jàmm asalaamaaleykum aleykum rahmatullah ah Adja Aminta Camara jërëjëf ah fa tabaarakallaahu kàddu yi rafet na tegundi ci yoon say mbokki jullit yi jigéen yi dégg nañ la léegi nag ñu ngi yox kàddu gi Adja Ndeye Diallo auzu billaahi mina seytaane rajim bismillaahi rahmaani rahim ñoo ngi woo waa Cees yépp ci gàmm gi ñu jëm muy le 28 décembre ñoo ngi koy defee nag ci promenade de Thiès di waa waa Lamine gi nga xam ne ñoom ñoom moom gàmm gi ñoom fa Imam Malik foofu la cosaanoo ci euh, euh, cité Lamine ñoo ngi ciy woo nag waa Tise di ci woo waa euh, Murit ga di ca woo ñépp daal taaxi kaw bàyyiwuñu kenn ci Thiès na ñépp génn ñoo ngi woo waa bàyyiwuñu kenn gàmm gi nag ren dañ ciy dugal suñu loxo takk ci répp danoo bëgg ñépp génn mobilisation bi tamit ñoo ngi koy defee fii ci fayu kaar yi dina taxaw lépp luñ ci man dinañ ko ci def incha allahu rabbi ñoo ngi ñaan nag si yàlla yàlla na ko yàlla defar ba mu mel na mu daan mel ba raw ko ci kàttanu yàlla ñoo ngi gërëm ñépp nag di sant ñépp baawuñu kenn nag képp koo xam ne dégg na sama kàddu mooy kàddu waa Cité gépp waa Cité Zangoon gépp ñun ñëpp daal na ñëpp takku ñu ñëw taxaw ci bis bi defar ko ba mu baax macha allah asalaamaaleykum. ah soxna Ndeye Sow fa tabaarakallaahu kàddu yu rafet na tegu na ci yoon sa mbokk jigéen yi dégg nañ la fa tabaarakallaahu ñoom ñëpp dinañ takku muy région beeg Sénégal képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha rek dina la wuyu léegi nag ñu ngi jox kàddu gi ah sunu sunu sunu doom nga xam ne moo yor la jeunesse. muy melan soxna Adama Diop soxna Adama kàddu gaag noonu. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi leen di woo ci suñu bésu bopp di bésu kan imam Malick Diop ñu ngi koy ànd ak la coordination des jeunes tidianes de Thiès et banlieue di ci woo daayira boppam muy muxtasimina bi xablillah almatin ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp di leen woo ngeen teel a génn ci taxawaay yi teeru gan yeeg defar lépp kon nañ ko daan defee at mu jot. wasalaam soxna Adama kàddu yi rafet na tabaarakalla wax nga ci turu la jeunesse féminine léegi nag ñu ngi jébbal kàddu gi euh, monsieur Alioune sar mi nga xam ni fa tabaarakalla ñu koy wax Sarr mat dëkk ci koñ bi fa tabaarakalla di ku yàlla baaxal kon Alioune Sarr kàddu gaa ngi jërë ngeen jëf yéen suñu soxna yu baax yi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi woo waa Sénégal waa Thiès rawatina waa Fayu ci suñu gàmmu bu El Hadj Malick Diop imam El Hadj li tax may woote ci gàmmoom bëgg ñépp teewe si ko moo di que daara ji bañ ko fi sampee ba léegi li soxna yi wax moo di daara bi fi sabilillahi lay def ku ci am sa njaboot dangay indi mu jàng doo fay moom moo yor ay usaasam di fay te macha allah njàng mi tegu na ci yoon may woo waa fayu yépp ñu ñëw teewe si ko képp kuy notable ci biir fayu délégué de quartier yi imaam yi képp kuy jullit képp kuy naan ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ñoo ngi lay woo ci suñu gàmmu gi le 28 décembre ci place de France di ci woo imaam yi di ci woo chef de quartier yi képp kuy julli daal ñu ngi lay woo ci suñu gàmm googu asalaamualeykum wa rahmatullah fa tabarakallahu euh, Alioune Sarr kàddu yi rafet na tegu ni ci illa fa tabarakallahu ndax suñu góor gi dana wax naan màkk boo koy yónni say xarit teg ko ci loxol ko xam màkk loolu nga wax ci Oustaz Malick Diop fa tabaarakallaahu jëf ju rafet la yoo xam ne daf ko donn muy def fi sabilillah léegi nag ñu ngi yëkkati kàddu gi jox ko ki nga xam ni fa tabaarakallaahu mooy imam Mbeng nga xam ni fa bu bu nit ñi taxawee mooy taxaw ci kanam moom it mu wax joxe joxeem kàddoom ci gàmm gi nga xam ne mooy jub si le 28 décembre 2019 ca fa tabaarakallaahu place de France bismillah imam aouzu billahi samil alim min alsheytan rajim bismillah rahman rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen ziyaara nuyoo bi nag li ko waral mooy bés bi nga xamante ni mooy bésu gàmmu Haaji Malick ñu ko daan joxe fii ci fayu ñu si wooye ci turu a ima yépp ñu ngi leen di si jiital imaam jibi Seck mu jima imaam jima bi ratib bi su ko defee mu yóbbaale mboolem a imma yëpp ñi ci woo mboolem julliti mboolem daaira ñi woo waa gox bi yëpp ñëpp ñu ngi leen di ñaan ñu teew ci bés boobu muy le 28 mairie bu cees ñuy ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm yàlla def ci bés bi réussir bu romb suñu njot imaam nag képp koo xamante ni xam na ko mooy moom nitu alquran la te yàlla moo wax ni na ngeen jàng alquran te jàng xayrukum man taallama alquran wa allamahu moom ci loolu lay yëng suñu njaboot yépp di ci barkeelu di ci jàng di for alquran kon liñ ko mënuñu ko fayee liñ koy njukkalee mooy ci bésam bi ñu teewal ko siggil ko sagal ko réussi bi yàlla ñu ko yàlla boole lépp di ci yëw bi jaay seydina muhammad asalaamaaleykum tabarakallahu ah, imam ñu ngi lay sant bu baax ci kaddu yi rafet na imam mbeng kaddu yi seede yi rafet na léegi nag ñu ngi jëm nag ci nga xam ni fa tabarakallahu moo waral yëf yi muy kan oustaz Malick Diop ah bàyyam bu baax ba day bu dellusiwaatoon jamono du soppi toogaayam ndax bàyyam bi li mu dund yëpp alxuraan la li mu dund yëpp diine la oustaz Malick ni ko alxuraan waxee rek alxaq naa bi bihim zuriyatihim bàyyam jug rek mu teg tànkam fa ko bàyyam tegoon ànd ak soxnaam sunu yaay yu baax ji Adja Bintou Sow fa tabaarakallaa nga xam ni professeur arabe la bàyyam di professeur arabe kon fa kenn laa xarwa Jóob kon boroom gàmm gi la ñuy bëgg a jox kàddu gi Oustaz Malick kàddu gaa ngi noonu. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Alxaaji Ngañ Fay jërëjëf mboolem ku jël kàddu jiituñu ni ñu ko waxee rek bis baa ngi noonu ñu fas ko yéene incha allahu rabbuna le 28 décembre ca promenade des Thiessois ci place Mamadou Dia ku agsi ci promenade des Thiessois rek di nga gis place bi fi mu nekk ndax lépp ci benn site bi la incha allahu naa nag guddi gu ñu tudd nag dañ naan guddi ku yont yàlla muhammad guddi googu rasulullahi moo ko moom ci biir njabootu rasulullahi nag xaaj Malick Diop tànn na ci ñaar ci ay maamam tànn ci ñaar ñoo xam ni pilier lañ ci tariqa cheikhun ahmad a tiijaan ki ci jiitu mooy suñu sëriñ suñu wasila ki nga xam ci buntam lañu jaar ba dem fi ñu dem yépp muy Maulana Cheikh El Hadj Malick bis bi moom ci boppam la ñu def parrain bi El Hadj Malick si la ñu def parrain bi di ñaan nag njabootu Cheikh El Hadj yépp ñu ngi leen ci invité tàmbalee ko ca xalif général di Tidiane ndax lii ci ndigalam la ak kuy njabootu Seydil Hadj Malick góor ak jigéen sans exception invité nañ ñépp ndax ñun Seydil Hadj Malick mooy suñu bunt ci tarixa bi mooy suñu bunt ci lislaam bi waaye nag ñu wéttalente koog beneen guuru yàlla boo xam ni ci tarixa Cheikhuna Ahmad Tidiane la bokk muy Maulana maam xalifa ñas di taawu alxaaji Abdoulaye ñas mooy deuxième parrain bi xalifa bi ci boppam xalifa maam Abd xalifa euh, Niass moom ci boppam Baye Cheikh Ahmad moo waxal boppam ni dana ci teew ñu ñaan suñu boroom yal yàlla may wér ñu ñu xam ñépp mboolem nag koo xam ni ñu ngi la doon fekk si wala ñu daan daje ci xew-xew yi wala ñuy daje ci tukki wala ñuy daje fu mën a doon ñu ngi lay invité ci bis bi di la wax ni bu ñu sañoon nga ñëw fekke si ko ndax bis bi yiw rek lañ ciy wut comme ni ko alxaaji ñu waxee guddi gi bu nu yàlla dimbalee ba deux heures fu mu jotee ñun incha allah ñoo nga ca promenade des Thiessois ci place Mamadou Dia xaar sunu invité yi fu nu mën a jógee fu min wi jotee guddi gi ki moom guddi gi mooy Chérif Ibrahim Aydara At-Tijaani moo tax gàmmu gi préparation gàmmu 31 decembre la moo tax soppe Chérif Ibrahim Aydara yépp nga xam ni bëggoon nañu gisante ak moom bëggoon na daje ak moom rendez-vous bi le 28 décembre lay doon ca promenade des Thiessois bu minuit jotee dana fekk gàmmu gi tàmbali ci teewaayu nag le ministre de l'intérieur sunu xarit alxaaji Ali Nguy Ndiaye moom ci boppam mooy ñëw teew fa teewalaale fa président de la république teewal fa autorité yépp comme ni ko alxaaji ngañ waxee ak ñi ñu jiitu invité nañ ci tout la classe politique autorité religieuse yépp ak autorité étatique yi invité nañ leen ci di ci invité nag sunu rakk boo xam ne bu particulier la ci ñun ci biir la classe politique muy sunu rakk alxaaji njaga jaw ñu ngi ko ci invité di invité nag imaamu Thiès yépp ci turu ki jiite rabita bi muy imaam alxaaji aas baro njegeen di sunu wayjur di sunu nijaay di sunu xarit di invité ñëpp guddi gi nag kii tal dalal gan yi mooy alxaaji Idrissa Diop moom ci boppam mooy dalal gan yi ak rakkam al ustaaz alxaaji Abdullahi Diop ñoom ci boppam ñooy dalal gan yi ndax ñun lii ñoom lañ koy defal ci teewaayu nag Chérif Ibrahim Aydara Atijaani muy borom guddi gi waaye ci teewaayu Chérif Sidi Maxtaar Kunta moom ci boppam ci ñiy présider bis bokk waaye tamit. ci teewaayu suñu kilifa suñu mag suñu seddoo suñu baay suñu lépp nga xam suñu xarit la muy Serigne Ahmed Khalifa Niass moom ci boppam dana teew ci guddi gi ñu ñaan daal mbokki Thiès mbokki Sénégal fu waay mën a nekk ba ci ñu ci bitim réew te nga xam ne suñuy wëlëre lañ ñu ngi invité mboolem kuy jullit kuy wax ashhadu an laa ilaha la wa anna muhammad rasulullah haj malik mi invité même ku dul jullit te nga yëg ni ñàkk a bokk ak yow principe terewul am nañu jàmm invité nañ la. ñu ngi invité mbooleem kuy doomu aadama di wax nag li tax ñu tànn Cheikh Al Hadj Malick tànn Maulana Al Hadj Khalifa Niass taaw Al Hadj Abdoulaye mooy jamono bu ne bu doxee ba yàgg ay nitu yàlla dañuy yëngu te léeg-léeg yëngu-yëngu yooyu ñu bëree bëri daan ci tab bi dugal discours boo xam ni duñ ko xam ñu bëgg nag buñ fa yàlla dajalee ku fa ñëw dëgg dégg ci Chérif Ibrahima Aydara at yi loo xam ni kenn mënu ko dindi. ci diggante ñaari kër yi waaye lépp nag ci njàngale sayyiduna muhammad ak mbindu mag ñi ku fa ñëw da nga déglu xaaju Malick Diop ku fa ñëw da nga déglu mbooleem borom xam-xam yi guddi gaa ngoog bis ngoog invité nañ ci Thiès invité borom daara yi invité borom xam-xam yi invité kuy nit te xamanteeg ñun suñu mënoon dañuy tudd kenn ku ne waaye na ñëpp yëg ni jox nañ leen kàddu xol tàggkatu yonent bi ñu ngi invité ñëpp asatis yi ñu ngi invité ñëpp a imma yi ñu ngi invité ñëpp mbooleem daal koo xam ni xamante nga Hajj Malick ñu ngi lay invité waaye nag ci biir autorités yi ñu baal ma ma tudd nag le maire bi nga xam ni mooy Thiès Ouest muy Pape Bachirou Diop maa ngi koy woo ci bis bi ndax mooy maireu quartier bi ñu dëkk te tabaarakallaahu bis bi heure bu jotee ñu nag moom ñoo koy ànd di ci woo nag sama frère monsieur Yankoba Diatara di ci woo nag mbooleem rek koo xam ni xamante nga Hajj Malick Diop université bu Thiès maa ngi leen di woo di woo étudiants yi di wax ni ñu ngi ñu ngi leen di invité ci bis bi di ci invité mboolem UFR yépp nag rawatina nag suñu njaboot gi nga xam ñu ngi foofu ak daayira yi nga xam ñu ngi fay dem ñu ngi invité ñépp suñu kàddu gi mooy kàddu gi nga xam ni yëg nañu ni mënuñoo egg fépp waaye kàddu gi lañ bëggoon mu jaar ci télévision am na ñu ñu waxal waaye sunu kàddu lañ bëggoon mu jaar ci télévision bi ba ñépp yëg ni guddi gi am nañu yéene ñëw fekk si leen te mënuñoo dem ci ñëpp ñu ñu mën a woo téléphone daañu leen woo ñu ñu mën a jox invitation daañu leen ko jox waaye ku ñu woowul joxuñu la invitation jàppal ni du ñàkk laa yëg kàddu bii daal la bëggoon mu nekk kàddu yëgle wi di wax nag waa Dexle Dexle pël gi nga xam ne falaay gàmmoo ci bisu gàmmu maa ngi ciy invité jeunes yépp ñu ñëw teew di invité nag waa groupe Mawlud 2019 bu EMS waaye di invité waale nag ñi nga xam ni ñooy waa groupe ziar Rumde ak nag mbooleem rek koo xam ni dëgg-dëgg yëg nga Haj Malick wala nga yëg ne Haj Malick yëg na la mu ngi lay invité ci bis bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.